mbokk yi ba léegi jëm si li nga xamante mu dynamique gu wàccaayu inauguration officielle jumaa Masaalikul Jinaan méngoo 27 septembre 2019 euh, ki nga xamante moo di kilifa gu tedd gi Serigne Mountakha Mbacké nar ko euh, teewe yu mel ni ba léegi ci dynamique bi euh, daayira yi nekk HLM jàpp Colobane Fass ak tamit zone yi nga gox yi nga xam ne ñoo séq jumaa ji demee ni ko jëppal Biscuiterie yi Derklé ñaari tali benn tali daayira yëpp ñoom ñoo lëkkaloo ngir tamit def jàkkaar taskatu xibaar yi ngir wax seen anam la ñu war a waajalee li nga xamante moo di inauguration officielle nees kiis ñu teewlu li nga xamante moo di point de presse euh, bu daayira yooyu def jëm ci li nga xamante inauguration officielle jumaa Massalikul Jinaan mi ngi ko le 27 septembre 2019. mu mel ni euh, ñu ngi ak Mouhamed Mouhamed Seye est-ce que mën nga d'abord nga présenté wu. salaamaaleykum maa ngi tudd Mohamed Massamba Seye nekk jëwriñ kuréel avenue Cheikh Ahmadou Bamba. tey jii nag boo tuddee ñu ne la avenue Cheikh Ahmadou Bamba da di tali bi nga xamante ne moo jógee Kastoor dem ba Colobane tey nag bu ñu ne la kuréel avenue Cheikh Ahmadou Bamba da di mbooleemu kuréel yi nga xam ne ñoo wër avenue bi te sekk ko maanaam mboole mi daayira yoo xam ne ñoo ngi biir HLM ñoo ngi Castor ñoo ngi Colobane ñoo ngi Biscuiterie yi ñoo ngi jëppal ñoo ngi bentali ñoo ngi ñaatali ak lépp lu ko wër ñoom ñëpp ñoo fas yéene àndandoo nekk benn nekk benn say te taxawal li nga xamante ne mooy kuréel avenue Cheikh Ahmadou Bamba ngir ñu permettre ñu ñu gën a gun ànd nekk benn te Serigne Touba rek a tax te fas yéene liggéeyal Serigne Touba. Serigne Mouhamed tey ngeen jàkkaarloo taskatu xibaar yi ngir waajal euh, inauguration jumaa ji. ndax mën nga ñëw par exemple waral ngeen woo taskatu xibaar ak ak moo waral mbir mi. waaw tey nag dañu am lu rëy ndax tey dañuy waaj ubbi nga xamante ne mooy jumaay Masaalikul Jinaan te ku xam Masaalikul Jinaan xam ne kat sunu borom da ko fayee Serigne Touba daa bokk si sunu borom fayee Serigne Touba kon tey jii bu ko amee dem di waajal am na ay activités yu ci programmé bi ci njëkk mooy samedi bii ñu jëm di samedi 14 dañu fas yéene def li nga xamante ne day set setal avenue Cheikh Modou Bamba ndaxte bu dul dara avenue bi comme ni ko tuddee ku tedd ki ñu ne kat nañ ko defar taaral ko bale ko peinture ko def si ay décoration ay nataal ku tedd ki ba nga xamante ne sëñ Muntaxa bu fi waree jaar jóge Kastoor donc dem Kolobaan nga xamante ne donc bu fi jaaree xolam dina seet incha allahu rabbi waaye ci kaw loolu ñu leen di xamal ne comme gi kat du ngan bu ndaw da boo xam ne day tàmbalee dimanche 22 ba vendredi 27 incha allahu rabbi dañu jàpp ne bés bu nekk si bés yooyu war nañ def li nga xamante ne mooy ay bésu euh, organise ay événement yu ci am am na bés bu njëkk bi nga xam ne dañ ko tuddee ki nga xam ne mooy sunu waajur bu baax bi di soxna bu so Bousso baleen bés bi ci topp mu nekk bésu conférence bi ngi tuddee Serigne Saliou Mbacké baleen bés bi mu nekk bés boo xamante ne dañ koy tuddee ki nga ne mooy Serigne Bara Fallilou lépp di ay ay ku ci nekk si ñoom si li nga xamante ne def nga ci ay jaar-jaar ak ah, dugal sa loxo ak baleen bés boo xamante ne dañ koy tuddee Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke laataa ñu yem ca cappaandaw ko li nga xamante ne mooy bésu inauguration officielle bi ñu leen di fàttali ne rek inauguration benn yoon lay am aaduna nekk si yoonu murit jumaa ji dem bàyyi a jamono ñu ko yeesalaat ak di ko ko sumil mbubb waaye li nga xam ne moo di inauguration képp lay am kon nekk na loo xam ne bu bés na ñëpp laxasaayu ku nekk bàyyi donc li nga nekkee ñu àndandoo defal ay berne yu doy te teral ngan yi incha allahu rabbi loolu mooy sunu mbëbët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 jale